Chérif euh, tey jàngat bi euh, ñu waxtaanee lu jëm ci euh, doing business. waaw doing business Fatou si li ko na nag jur na coow semaine bi ñu génn groupe banque mondiale danoo génn benn communiqué. Mhm. daal di ne daal danoo nemmeeku ay irrégularité ci nga xamante ne rek mooy ay données yu nemmeeku nga xam ne ni at mu jot moom groupe banque mondiale. di cette année dañuy génn ay rapport ñu koy tuddee rapport doing business mm-hmm. Sénégal daana ci am classement yoo xamante ne sori na ci ay jamono daal di jur polémique diggante pouvoir beeg opposition bi parce que dañuy xool réew yi nga xamante ni ci wàllu réforme ci ciy góorgóorlu ngir rek ñoŋ environnement des affaires mm-hmm. mais li ci yéeme nag mën nañ ko boobu ñu ne un certain nombre d'irrégularités signalées concernant des modifications apportées aux rapports Doing Business des mm-hmm. rapports Doing Business 2020 lesquels rapports ont été publiés respectivement en 2017 2019 ces modifications n'étaient pas cohérentes mm-hmm. avec la méthode Doing Business donc loolu ci benn paragraphe bi nga xamante ni kon jàpp nañu ko mu mel ni kon Abdoulaye mën nañu rapport Doing defutul affaire. waaw mais Chérif balaa boobu sax dañu faram-fàcceel du doing business déjà pour ñu koy déglu ñu xam loo muy tekki. <laughs> non je pense que c'est important Cheikh li mu wax doing business gis nga euh, groupe banque mondiale la i expert yoo xam ne ñoom ñoo koy def mais li bëgg a wone mooy fan moo gën euh, baax pour def fa affaire boo bëggee dégg wolof bi mooy dañuy tànn xool fan moo gën a baax daal pour def affaire boo bëggee def mm-hmm. affaire mm-hmm. fan nga ko gën a war a mën def Sénégal Gambie la Mali la Mauritanie Singapour Taïwan classement la ñuy def sur cent quatre-vingt-dix états mm-hmm. situation nekk nag ñu wax la ci wàllu électricité énergie fii nga war a investir dëkk bi wóor na environnement bi mooy l'environnement des affaires moo tax ñu tuddee ko doing business ay nit nag ñoo koy propice pour voilà investir voilà fu fu gën a fu gën a nooy <laughs> voilà fu gën nooy pour nga def fa sa xaalis loolu nag enjeu la pour état yi parce que léeg-léeg da ngay jàpp ni bu ñu nee yow sa état moo gën a wóor sa environnement des affaires daal ci ngay attirer ay investisseurs parce que ñi koy def ay experts lañu ñi yëngatu ci wàllu économie bu mag bi aussi ñu leen di déglu lañu li ci feeñ nag mooy dañuy rendre compte ni résultat yi du toujours objectif ci ni nga xam ne noonu lañ ko war a yaakaare ndax ñu gis ay classement yoo xam ne baax nañ taxaw ci bu nekk par exemple boo gisee d'un coup mu jógee quatre-vingt-dixième place gagné soixante points gagné soixante classement ñu ne déetawaay ay réew yu mel ni ki émirats arabes jóge ñoom ci classement yoo xam ne def bon yu important ci laps de temps boo xam ne nii gisuñu lan moo changé ci seen environnement des affaires pour ñu am genre rang yooyu dafa am ñeenti réew yoo xam ne nii seen classement moo tey xel finalement groupe banque mondiale ah li ñuy def nii nañu taxaw parce que euh, digleetuñu rek fan moo baax pour faire ñu ngi yàqal ndekete parce que li feeñ mooy duñ business bi bu la classé bu baax ndeket taxul nga am ay investisseurs mais bu ñu la defee classement bu baaxul da gis ni da lay yàqal fa la la nit ñi di dawe cest à taxul kenn tey am ay investisseurs parce que bi bien classé nga ci ay études wane nañ taxul Sénégal am ay investisseurs yu fi ñëw parce que ci doing business fi la ñu donte nag réew mu ñu génnee classement wane ne sa classement baax na bon lay mais danga koy voilà ñi nga xam ne classement baax la bàkkoo ak yeneen ak yeneen mais xam nga lu tax du investisseur mm-hmm. parce que ñi ci nekk yëpp xam nañu valeur doing business boobu xam nañu ni pëndal la rek cest à bu ñu waxee pëndal exagération am na ci mais li tax ñu wax ko mooy ñi ci nekk dëggantaan ci la grande économie boobu xam nañu ni rapport yooyu experts yi di def léeg bu dul corruption tappalee ngi ci wala neexalaat ba tax na ñoom ñi nga xam ne ñooy investir c'est rare ñu wekk seen investissement ci doing business boobu maintenant bu ñu nee nag fii moom baaxul dañuy jàpp ne ah dëgg la jar naa moytu parce que boo fa duggee lu la ci fekk la gis nga ko ci mën na la coûter sax plus cher parce que rapport du business yooyu bu ñu la joxoñee ne la fii baaxul boo fay dugal assurance yeeg yeneen enjeu yëpp mën naa yokk mu tegu sa kaw maintenant li ci problème mooy lu tax ñun suñu réew yi ak yeneen a ah di wékku ci classement yu ni mel yoo xamante ne nii toujours ci ay laboratoire banque mondiale ñu ko fabriqué dafa am ñoo xam ne nag seen xeex dafa mës nekk ci ne banque mondiale ak yenn institution yi FMI fabrique de pauvreté le terme bi maa ngi ko emprunté ak euh, benn expert banque mondiale boo xam ne yàgg na fa mu def koo xeexam sénégalais la Pape Demba Thiam mu il même à Genève loolu moo ko tax a jóge sax ci banque mondiale entre autres bëri nañu mais particulièrement moom parce que terme bi daf ci taxaw ci lu mu jàngat pare ci institution yooyu c'est-à-dire su pauvreté maintenant seen préoccupation yëpp mooy xeex ko mais ci biir xeex bi ñoom ñoo koy suuxat aussi parce que bu ñu demee ba ndóol amatul amatuñu raison d'exister maintenant ñu ñoo demal suñu ba est-ce que soxla nañu xaar ba nit nañu waa seen dëkk wóor na nit mën na fee investir pour que ñu wuti ay investissement loolu mooy problème bi tey te wane nañu ni xëy na soxlawuñu ay classement yi parce que classement bi dinañ ko suspendre pendant deux ans provisoirement mais du tere Sénégal bu président Macky bëggee dem France exposé fa intérêt wu Sénégal defe naa ni waa MEDEF yi nga xam ne ñu ngi ko doon recevoir barki démb ubbiwuñu classement Doing Business Sénégal pour xool rang wu Sénégal fu mu toll seen opportunité ñoom nu ñuy defee business ak Sénégal la xool te wekkuñu ko ci benn référence muy Doing Business wala muy leneen ñun nag depuis 2002 sooy fàttaliku rapport bi saay bu génnee bu ñu gañee deux points sax bu ñu gañee ñaari rang danañu ko bàkkoo bàkkoo bàkku bàkku ba da ngay yaakaar ni parce que doing business classé nañu bu baax rek suñu économie dem mais doing business bu la classé bu baax ce taux de chômage di gën a yokk économie bi doxul te ñu bëri ne économie bi sax c'est travesti est-ce que finalement amal nañu ko njëriñ yooyu yëpp ay laaj la yoo xam ne tax na ñu daa góorgóorlu quand même ci ay réforme ba gisoon ay jéego yoo xamante ne amoon nañu ko ci rang bi surtout jéego yi xam nga waaw mais xam nga daf lay dugal loolu aussi c'est très pervers mm-hmm. parce que daf lay dugal ci ay réforme yoo xam ne xëy na intérêt wu ñi mu doon mm-hmm. mooy ñey ñëw parce que yow la naan rek ubbil mën a ñëw mm-hmm. mais ubbi boobu yow amoo doole moo tax mais boo demee tey ay ay Singapour pourtant temps général sax moom ci classement yi gën a baax lay bokk ci doing business bi foofu yooyu yaay fay ay droit d'entrée mais fii ñun bu ñuy ubbeeku ñun ñooy ubbil ñi nga xam ne ñooy ñëw presque ñun ñooy sax pour ñoom ñu ñëw alors que normalement bu ñu nee yow sa kii baax na ñii ñëw ñooy war a fay ay droit d'entrée mais ñun fii limite ñooy fay nit ñi sax pour ñu ñëw ak facilité yi nga xam ne ni di leen ko yokkal xoolal tey par exemple boo jëlee lu mel ni que Sénégal chantier BTP yi par exemple wala travaux publics yi par exemple yi fi gën a yi fi gën a bëri ci at mi ñu nekk nii offre spontanée la xam nga luy offre spontanée mooy ki nga xam ne nii moo nekk bitim réew parce que souvent offre du doon entreprise locale entreprise étrangère la. Mhm. bi ci gën a fës fan yi bi ci gën a fës ci at mi ñu nekk nii. Mhm. mooy 18 autopont yi par exemple. Mhm. offre spontanée la xam nga luy offre spontanée mooy ka nga xam ne nii mooy liggéey entreprise ba mooy identifie ne la yow de gisal naa la sox gisaaneel naa la. war ngaa soxla lii ak lii ak lii ma defal la ko mais nekkul ci programme état bi pour moom mu defal ko boppam. te offre spontanée ni muy dem moom bu ko gisee ba def étude bi ba woon état bi ni lii war nga ko ma defal la ko état bi dana ko waaw yaay wut wutil euh, wutil xaalis bi loolu li muy indi te rapport yi wone ko mooy projet yi ça va coûter deux à trois fois plus cher parfois mm-hmm. parce que du objet bi tey mais ci comparatif 18 autopoint boo ko comparé ak li fi mës a am ci travaux yeneen i infrastructure mm-hmm. au moins on passe presque du simple au double ci li nga xam ne ni mooy jëkk ministère des finances pourtant am nañ fa économie ak yooyu li nga xamante ne mooy direction planification ay suñ fonctionnaires yi ñoom luy seen rôle ci wàllu woowu gis nga loolu daf ñuy delloo siwaat ci doing business bi gis nga dafa am loo xamante ne nii gëm-gëm la ak pas-pas ñun suñu amee suñu ministère de l' de et des finances souvent dañuy am complexe boo xam ne faw kilifa ya fa nekk jëli it ay ex ay ñoo xamante ni donte ay sénégalais lañ. Mm. mais ay produits et fii banque mondiale tey boo demee ministère de l'économie par exemple. c'est-à-dire am na loo xamante ni mooy ay cadres Sénégal yoo xam ne fi lañ leen formé ñuy ay cadres ñoo yore direction générale euh, politique planification euh, politique économique yi. mais cabinet ministre bi aussi am na ay experts yoo xamante ne nii euh, cest loolu dafay tey xel souvent ay experts yoo xam ne nii ay conseils am ñoo ko gën a jege te ñu muy jëlee ci ay institutions internationales yooyu la FMI Banque mondiale léeg-léeg sax tooñ nañ euh, ministres yi ci seen i briefing sax dañ koy def en anglais parce que entre ñoom la ay experts yoo xam ne nii bokkuñu plan de relance bi nga xam ñu koy euh, tabax te wax ni ñëpp ci war a participer parce que def nañ ay concertation yu bëri mm-hmm. boo ko defee ba pare dénk ko ay cabinet yoo xam ne nii xëy na ay produits experts yi banque mondiale ak FMI. Mhm. est amal na ñu njëriñ. Mhm. plan Sénégal émergent bi. Mhm. coow li ba léegi jeexul. parce que wax ni lu toll ni plan Sénégal émergent ay experts nekk fii ci réew mi mool ko xalaat yi mais ñu jël ko dénk ko ay cabinet yoo xam ne ay privé étranger lañu pour ñu. tabaxal Sénégal plan Sénégal émergent gis nga loolu dafa lay topp ba 2035 bi ñu ne mooy terme plan Sénégal émergent bi coow loolu du fi jeex am na ñu ñun ressources yoo xam ne mën nañu compter ci ñoom ci suñu réew yi ay doing business ak nañu business ñu biir fii te mën nañoo définir ñun lan mooy avantage lan mooy suñuy intérêt ak lan la ci lan la ñu gën a mën a euh, mettre accent euh, ci classement bu mujj bi je Sénégal gagné woon na 18 places nekk 123 123e sur le plan mondial loolu poudre aux yeux la wala waaw non loolu kay passé na poudre aux yeux mais xam nga souvent li ñuy jàpp ñun rek mooy gagné naa nangami point mhm. mais gagné naa nangami point boobu terewul yaa ngi toujours état boo xamante ni nii état de pauvreté avancé la mhm. business boobu nit ñi di ñëw di def doing business ci sa biir réew wàññi luñ la sa chômage parce que gis nga état dem na ba théoriser emploi décent emploi décent xam nga bu ñu demee bay théoriser emploi décent génne nañ ci ñi nga xam ne ñooy liggéey ci chantier yi te finalement fii presque liggéey bi bi ñuy jox nit ñi en temps en tout temps mooy chantier ubbeeku ñu jox nit ñi bu chantier bi jeexee nag nit ñi débrouiller mm-hmm. yow war a fexe nit ñi am liggéey boo xam ne nii liggéey bu taxaw la ñu jàpp ci ñu mun cee suturlu mais pas loo xamante ni nii rek c'est c'est temporaire te ñu dugal ko ci statistiques yi def naa cinq cent mille emplois yu gouvernement bi yeeg un million yi nga xam ne moo nekk ci mandat président Macky Sall bi du ci noonu lañ ko nar a lijjantee doing business baax na mais business boo xam ne ni ñun ñoo ko définir suñu bopp xam luy suñu priorité fii est-ce que soxla nañu banque mondiale pour wax ñu ne mbay mi bu ñu ci investir Covid bi li mu wone mooy li ñu moomal suñu bopp buñ ci investir ñii gan gi mu ngi fi est-ce que war nañoo tollu Sénégal bay importer ji ay xaraki nag ba léegi quand même. Mm-hmm. bu tabaski jotee ñu ne dara amu fi nañ ko jëli ji feneen. Mm-hmm. loolu soxlawuñu business vraiment pour wax ñu opportunité yi nga xam ne moom la am ci réew mi. Mm-hmm. te lii opportunité la pour taxaw. ay doing business ak pas de business ñu xool ñu nu ñu doxalee suñu bopp. très bien waxtaan bi am na solo Ablaye Cissé ñu koy jaajëfal bu baax a baax mu doon def jàngat bi ci doing business ak itam euh, euh, taxawaay bi euh, ni mu ko waxee léegi ñu koy ñu lay jaajëfal bu baax a baax Ablaye Cissé nga desandi ak ñun ñu dalal suñu invité Ismaïla Sow la yu yoo sëñ bi ñu ngi lay nuyu Adja Fatima ngi lay fay mm-hmm. di nuyu téléspectateur TFM mm-hmm. très bien moom moo jiite maison des éleveurs léegi-léegi sax dañ di soobu ci waxtaan bi